jaay ma sa door suba ba tey werga sa bi rek la nit ñi di laaj benn bii rek moo ci des sama gaay jarul coow ak Zador rek fekk ma sama kër ma leen invité ca <laughs> Zador bala ngay xam ne war nga bee neex nga xiim ko jox sa waay lii far na fur te fees na tekki seetlu waay mar naan marul naan war nga a neex waay yóbbu ku ci ñam daal faaw nga takkam ci ku ñamal ba xam warga j'adore yegg si na Sénégal ñamal ba xam ak warga j'adore bu leen neexee ñu troisième jël leen seen temps <laughs> bëgg nga poser ma ko benn question rek boo xamante ne question avant combat la bu tontuwee sa question nga soog a dugg nag ci biir combat bi coach Bakary. waaw bu bu ma bëggoon poser question sax dama bëggoon a décortiquer ba pare après ci biir décortiquer bi ma koy laaj pour mu répondre maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko ziar di la wax ne la adduna nii la nag am ak ñàkk ñoo fi am dundu dee waaw wala déet yàlla suñu borom moo dogal loolu kon ça veut pas dire que doo champion. Mm. dangay ngay mm. defar war rek ñëwaat bokk. Mm. defet du dara pour man dama koy wax gis naa suñu fàllu ci kaw ring defet du dara ak mën wax ak ku lu nit mën a wax. wax ci defet coach bul di wax ni gis nga sëñ fàllu ci kaw ring ñii nii kese te gars yi du ñu comprendre li ngay wax. naka nga gisee maanaam da ngay jël ku xam nga ndeysaan boo gëmee. moo tax man dama ko gis a njaxasu Baay Faal ma ne non gars mi ngi ne sama bi ba yàgg ma ne loo bokkul. am na différence parce que man damaa commencé def juróom-ñaari sëñ Fallou ba pare. ma jege waaj waaj ni mu teel ma gisatu dara nag lekk xam nga la nga mujjee wax souvent ba moytul moom ngay gis ça dépend tu comprends mais defet wóor na yàlla wallahi walazim ku la gën a taxaw ku la gën a aay Mike Tyson gis nañ ko fii gis nañ fi Conor McGregor gis nañ fi tur bu ne tur boo xam ne nii tey wër na àdduna complet day am bis boo xam ne mu waa ji fa lay defaroo ba faw fa lay daanoo mais fa lay defaroo ba faw man nag samay wax du ma ko raay muy sitaa di grek gi bàllaak di bës ak ñëpp li ma xalaat ak di li ma gis laay wax bu dee du noonu nga dama du noonu je suis ouvert à discuter donc bon ah, gars dañuy commencé live bu am solo fii ñuy xool li nga xam ne nii moom mooy combat aussi tamit dañ koy décortiquer à zéro am nañ Tapha Gueye ci diaspora bi de dégg naa gars yi wax l'œil du tigre mais bi l'œil du chat différence bi dafa am l'œil l'œil de la panthère aca bismillah tey coach wala coach gis nga toogaayu site bi li détermination la déterminé toog se xool sa adversaire moment bii mi ngi xalaat lu mu war a def bu arbitre bi génnee seen diggante muy lu am am solo ci combattant bu dugg ci biir ring première chose mooy lii. mais lii ban combat ban combattant moo koy def en général. da ngay gis euh, Camara Ousmane bu deful nii jàppandul ci kii bi wala John Jones da koy def toog écart tànk yi concentré wu jël souffle bu baax respirer bu baax. c'est très important fii nag. exactement fii damay commencer ci Siteu lépp loo xam ne ni tey dama defoon live wax lépp luy négatif tey damay wax négatif ak positif lépp lu Siteu njëkk a def fii dama ce d'accord parce que fii xel mooy xel ngay utiliser pour atteindre sa adversaire seet leen bu baax li Siteu di njëkk a def ku ne Siteu day xeexee benn tànk wala beneen tànk bi day am différence mais fii da ngay gis Siteu positionnement nga gis taxawaayu Siteu ñaari loxo yi ci kaw donc mi ngi taxawee en mode taxawaay bi sa combattant da naan damay foncer ci yow direct si te day changer fii direct gisoo siwit si baa nii. waaw gis naa ko. dañ koy dëppaat deux secondes deux secondes rek lu lu am lu am solo ci footwork mooy lii le mode V siwit bi damay avancer attaquer dem jàpp fii jàpp na waa ji doon mu wàcce loxoom glissé na fàttaliku leen tamit. tapi du suuf de tapi sa tànk bu dee bul tuuti rek pour nga laal suuf dafa yomb ñax bu fa amee pour nga laal suuf day yomb kon bu ko continuer fii da ngay gis teg la pression ci kaw waaj teg la pression ci kaw maa ngi doon wax ci ginnaaw naa jëlal sa temps jëlal sa temps jëlal sa temps parce que xam naa ni lii dafa métti pirit nga songu nit gisoo cook ndow double hand elbow dóor jàppanduwaat jéem a bëri encore ba tey minute yaa ngi dem ba tey da koy gis mi ngi continuer di continuer di joxe fii nag këram moo naan ko mu taxaw xalaa tànk yi di ko yëg tànk yi day commencé di ko yëg parce que bu dee da ngay entraîné làmb li ngay def ci din li ngay def ci squat tey boo demee MMA entraînement bi nii la def c'est diamétralement opposé crossfit da nga koy utiliser lu bare bare bare bare explosif paaw waaw da nga koy utiliser bu bari bu dee làmb ji nag day ñëw dindi def nii yéeg waat def ko waat nga dem def musculation ñëw def tuuti compte noonu lay demee mais fii si te bu doonoon cent pour cent joxe na fii soixante yëpp mu dese ko quarante pour cent léegi quarante pour cent yi moom lay moom lay commencé di brûler seetaan ko mi ngi dem ci quarante yi ba tey ci daane na ko fii tu perds dix pour cent direct adresse trente maintenant fii si te yëg ci moment bi moment bi Siteu mënoon na ko cóob bu doon jiitu ci moom bënn na moment bi waa ji perte na combat bi moment bi day perte combat bi cent pour cent moom bii nii moment bii Siteu bu jëloon loxo bi xam nga waa ji da koy jàpp ci loxo loxo bi lay jël jegeel ko waa ji day fàtte fële ci ginnaaw Siteu day dugal loxom ci suuf tourné ak moom ci beneen sens bi da koy cóob direct triangle moom la ñu woowee triangle Siteu seetaan ko mu continuer moment bi damay wax ne Siteu waaj dalaa màtt bi. waaw dafa ma mais dafa gàtt dafa sax sama baaraam am na fu ma xoolee arbitre bi. merci beaucoup parce que ça dama ko xool mais du woon loo xam ne nii tey damay wax ne dinaa ko def laay wax ko non parce que damay bañ man ñaar faralu ma mbër ci kaw suuf faralu ma xeexkat ci kaw suuf sama bopp laa faral na leer kon fii dama gis ni Siteu mi ngi réclamé. fii da ngay gis xoolaatal waa ji loxo cité bi xool leen loxo cité bi fii ci suuf bu demee ba tourné mais nag ci caay-caayu MMA la bokk des fois am na noo may. non loolu moom loolu moom sport mais lu tax chaque fois rek yow dañ lay mat rek. waaw non boo xoolee man boo xoolee sama combat man. fii nii si la moo xew fii. lii lii ak sport ñoo ànd. coach posel foofu. coach posel parce que. Mhm. laaj ko lu tax yow ñu lay mat ngay signaler arbitre. non non sama combat man ak Zarko. waaw. Mhm. boo xoolee sama combat man ak Zarko man Zarko li tax mu màtt ma man maa ko def. Mhm. parce que Zarko saa yu dawee songu si ma damay jël day jël sama tànk mais sama baaraam bi man damay téye sama sama ñaari baaraam ni may songee jël sama tànk man damay jël sama ñaari baaraam téye puutam bi. Mhm. léegi nag mooy waral songu bu may songu du si léegi nag deuxième chose bi ma koy defaat sama baaraam dafa dugg si biir gémmiñam kon pour wax la lii ak sport ñoo ànd affaire caay la rek. kii parce que man maa ngi naan Siteu dafa xamul règlement moo tax muy wax arbitre. bi peut-être problème communication en anglais moo fa nekkoon mu xool arbitre bi ci bët di ko wan ne fii la mais arbitre bi viva fi bref arbitre bu dee arbitre refaire booy arbitre arbitre bi du xool li ci suuf moom li muy surveiller mooy loxo buy njëkk a tàppe mi ngi surveiller cóog bi nga xam ne ni tey mooy solo nit ki pour ba diixul lépp mu daw àtte mi ngi xool ni mu nekkee en danger mais moment bi ñu woon. foofu même bu même bu doon arbitre arbitre bi du ko du ko du ko gaaw a dégg ci loolu. arbitre gisu ko. du ko gis. donc fii day continuer. ñu terminer ñu oh, continuer fii laay laajte nag couteau bii nii. ok gis nga couteau damay gis na sa jug sax gaawutoon qu'est-ce qui s'est passé. waaw couteau bi xam nga ñoom xam nga xam nga tey boo xoolee règlement bi. règlement bi dala wax ne maanaam su fekkee da nga teg sa loxo ci suuf. Mm-hmm. amul droit pour dóor la coup de amul droit pour mm-hmm. conc la. Mm-hmm. pour coup de genou tànkam droit pour dóor la ko. merci beaucoup règlement bi loolu. léegi ñu continuer fii. mais bi ma ko dóoree. bi ma ko dóoree. man sama sama sama triceps la dal. ku mu ngi mel ni muy jóg mu dal ma fii. léegi nag sama loxo dafa sumbeeku. bi ma ko dóoree. booy xool fi muy jóg maa ngi yëkkati sama loxo soo xoolee sama. xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw mouvement gis naa fi nga xamee ne nii Siteu loxo bi c'était pas normal mais je suis pas médecin te xaw ma moom li muy yëg woon ndax man loolu laay yëg déjà à la base. donc coach jegelal ma jegelal ma caméra bi pour ma comprendre li ngay wax parce que li ngay wax il faut ma comprendre ko. Euh, ok mouvement bi fii fii nii seet bu baax la ma leen wax xool leen mouvement bi biñ demee fii nii waaw loxo gis nga sama benn loxo bële nu mu tourné. Ah, ah. sama loxo bële. maintenant fii da ngay gis Siteu ci même ci dox bi mi ngi gestu di xool. un moment donné nga gis ko mu loxo bi ñaari loxo yi ci kaw. sama loxo droite gisuma loxo bi gisuma dafa dafa dafa nëbbu. xaaral de palaat gis nga loxo bi. Ah. amul loxo dafa tourné dafa dafa sumbeeku ba tourné. ci nga gis muy jub di yëkkati loxo bi ci kaw man dama dama ko téye ak sama loxo gauche bi yëkkati ko bi ma ko yëkkatee comme ça veut dire que tey damay gis képp ku sa loxo sumbeeku rek boo defee sa zéno bi. comprendre nga ma si laa ko dugalee sama jeune bi affaire bi delluwaat ma ne ah kon war naa mën a eggali sama xeex comprendre nga. mais yow c' est la première fois sa loxo du summeeku ci sa la première fois mu summeeku. mu summeeku mais warul mun a yàq xam nga li ma jàpp mais sax man maa ngi changé beneen salaire sama biir yaram maa ngi sentir leneen. coach Bakary loxo bu summeeku loolu c' est fréquent ci combat MMA. bu doon man damay damay taxaw ne bëreewuma xeexuma. ma nee naa leen nag am na yoo xam ne nag yéen a koy teg seen bopp parce que yenn kii man dama la koy wax léegi maam ci ay tubaab lañ ne sama la ko simeeku la marché baa ngi dama la ko banaan ba réew ma victoire bi moom moo ko naroon moom foofu victoire bi c'était la victoire de fii nii lii rek première round première deux minutes yu njëkk yi rek victoire bi Siteu moo ko moom direct moment bi que ça soit même boo xoolee boo bi fii nii avant suñu round bu njëkk bi man dama am sens bu ma amoon mooy dama ko dóor sama góos bi dama ko dóor fii am fii dafa teppeeku xaw ma gis nga ko hmm. xaw ma dama ko dóor ba sama fii teppeeku. mais bi sama kaw di sumbeeku. dinañ ñëw balaa xeex dama bëgg mu play mu play vidéo bi gis nga bu play vidéo bi. arbitre am na fu ngay xamalee ne carrément ne moom affaire boobu mu ma dóor amul droit te foofu arbitre da ko waroon a jox benn avertissement au moins foofu noonu. comprendre normalement en règlement MMA bu nit. ok loolu mooy règlement MMA boo ko dóoree normalement tu perds le combat. day mel a tey arbitre bi arbitre bi ñëw àttale ñeneen arbitre bi nii tu perds ñëpp dañoo taxaw mais est-ce que foofu est-ce que foofu yal min bi kon nekkul ngaaka. coach si merci bës xam nga xam nga tey mooy li ma lay wax rek. nekkal olof nga dem ci nga dem ci làmb làmb làmb séeréer wala nga làmb dem ci làmb joolaa comprendre nga seen mbokk la ñu gën a mun a favoriser si lu mu mun a doon comprendre nga. Mm-hmm. yee kenn ku si nekk sa drapeau ñaanoo yàlla mu wàcc kon am na yenn faayu ndaw yi am yow mun nga ko bàyyi ci biir mu continuer comprendre nga loolu bu doon man sax boo ñëwee sama biir koñ nga indi nit dama naan yow am na affaire yu ndaw ndawaan yoo xam ne bu yàqul affaire dama naan dama koy bàyyi mu dem comprendre nga. loolu yàgg na ci sport. coach règlement règlement la tamit wala. waaw règlement règlement la mais règlement mën na doon règlement mais tout dépend de l' adversaire que tu que tu te battes avec bu fekkee ne si te réclame wut jóg na dem na ci corner ah. normalement vis-à-vis tey bu ñu a def dara sax te te tamit naa leen ko waxaat bu leen fàtte nee naa leen cent pour cent doomi américain bu doon xeex ak doomi immigrant bu dëkk feneen te nga gis ne doomi américain bi def na cinq combats yoo xam ne nii tey amateur ñëpp gis nañ ne aay na ñu bëgg ko build dugal ko UFC fight pass qu'importe ñu combat bi mënoon demee si te du gagné combat bi bu doon entraîné xoolal ba ba teere ñëw combat bi day metti rek décision la jëm ci boobaa mooy perte dama leen koy waxaat c'est des c'est des vécus yow am na yoo xam ne su waa ji day am mënoo ci dara kii lañ ko doon build Jacqueline Servette nee naa leen dem leen xool lan mooy background Jacqueline Servette football américain doomu baadoola du ko def un deuxièmement ñu continuer ko wër saa waay newul ci mi ngi ci dara non seulement dañ ko doon build pour dugal ko UFC Fight Pass pour dana dootu yàggat ñu joxaat ko combat lu leer laa leen wax donc bu ñu tëbee étape boobu dañuy ñëwaat fii. Bakary Bakary baal ma s'il te plaît Bakary. waaw Bakary baal ma Beuz j'ai une question juste une petite question. ma bëgg ñu des ci règlement bi bi loolu amee léegi nañ ñëw ci règlement bi lan la règlement bi may Siteu lan la Siteu waroon a def pour que arbitre bi jox ko victoire bi ñu bañ a dugg. ci peut être dañ ko war a. normalement ma ko am foofu comprendre nga. parce que nit ko si nekk nit nga arbitre mën na ko gis mun na ko bañ a gis comprendre nga. parce que action dafa gaaw yaa ngi ngeen nekk ci làmb arbitre gis loo xamante ne action am amateur nekk ci kaw gis loo xam ne mu mënu ko gis. il faut ñu xam loolu comprendre nga. mais xeex bi xeex naa ko comprendre nga gagné nañ ma mais man ni ma ni ma ni li ma joxe man ak ak ak condition bi ma bi ma bi ma bi ma joxe ak li ma perte man même sama adversaire loolu la perte. mais chance bu ma ëppalee mooy man dama blessé. te kenn xamu ko comprendre nga. comme sama loxo sumbiku na dugalaat naa ko man maa ngi amaat sens. boo boo xoolee xaaral xaaral xaaral Siteu Siteu une seconde xaaral gis bi kon kon coach Bakary dama bëgg nga décortiquer dernière partie combat bi parce que Siteu parle de sa bu ma sañoon bu ma sañoon moom day continuer vidéo bi ba ñu xam fu ñu egg ndax parce que am naa. waaw mais parce que loolu laa bëgg fi mu toll nii bës bu ma sañoon da ngeen may bàyyi rek ma pare après gars yi parce que c'est très important dama koy wax bu dee règlement wu MMA dañ lay tegal règlement bi ba avant ngay dugg sax ci ring bi. refaire bi yow. day wax ak yow ne la hey fii doo dóor fii doo def lii doo def leen arrêté leen ngeen arrêté bu ma leen lii ngeen lii dañuy ñëw wax la ko a ngay yéeg 30 minutes avant ngay yéeg dañuy expliquer lépp expliquer soog euh, sa entourage maa ngi ko woon si te wala néew moo foon xam nga foon mais xam naa ni noonu lay demee donc bu combat bi continuer esquive maanaam esquive de mën nga ko moom. non parce que xam nga lu tax may esquive. Mm-hmm. parce que man amatuma jaab. sama droite moom laay jaabee pour sama gauche mun a am doole. te boo xoolee benn loxo kese laay xeexatee muy gauche kese. Mm-hmm. yaa ngi dégg. loolu la ñuy ma ko ratee saa yu ma ko dóoree day daal yaa ngi dégg boo xoolee sama gauche saa ma ko dóoree day dal amul benn gauche bu ma dóoree dal. mais sama gauche pour mu am puissance. te gauche ñun moom la ñuy gis ci caméra bi mu doon droite ndax caméra bi nu mu bindoo ko pour gars yi bañ boo xoolee gauche yi may dóor yëpp a dal mais sama droite instant bi mënatul def dara parce que loxo bi instant bi loxo bi mënatul dara salaire may yëg man rek maa xam gis nga dóoratuma jaab amatuma jaab. day teg loxo rek buux. waaw waaw léegi léegi loolu noonu léegi man avantage bi ma amati mooy ma fexe mu egg suuf. maintenant fii si fii dama bëgg ñu taxaw seetlu fii bu baax. nee naa buzz mais tournée bi dafa yomb torop mais après la xoolaat vidéo léegi nag léegi nag man loolu man maa si mën a wax dara boo xoolee instant bii nii yaakaar naa tey ak lu ma mun a sonn sonn sonn sonn man bi fexe ba egsi fii comprendre nga boo xoolee fii benn elbow kese laa ko dóor mooy benn benn du benn gauche kese laa ko dóor lu tax si tëdd ci kawam xam nga ma ne laa damay dem ba ci body language parce que parce que bi may egg moom ci suuf moom bi may egg ak moom ci suuf di koy daan. Mhm. maanaam boo xoolee mouvement bi ma def pour tourner ko pour ma egg suuf. Mhm. man sama loxo droite bi laa utiliser te loxo droite boobu avant maa egg suuf dafa sumbeeku waat muy deuxième sumbeeku. Ah. léegi loxo boobu ni mu sumbeeku foofu noonu léegi nag munu ma jóg pour mun a toog ci kawam bu mën a dóor gauche ak droite mënu ma ko def. léegi comme sama loxo baax tul léegi nag man maa ngi jéem a xool nan laa mën a def pour mun a récupérer pour mën a xool sama loxo nan laa ko a génne foofu. léegi loxo boobu nag moom boo xoolee njëkk na ma tourné mënul dem ma téye ko mais deuxième tournée bu muy tourné loxo boobu la téye léegi nag douleur bi nekk foofu man day possible ndax parce que daf may. moom laay ñëw léegi nag ci douleur boobu laay jëm pour wan nit ñi ci sa visage yow maanaam bi nga tëddee ci kaw waat jëlaat temps gars yi jël leen temps xool leen bu baax li ma leen wax dama koy jegeel ba mu gën a jege concentré wu leen ci kanamu Siteu man bi ñu nekk suuf rek xool leen gémmiñ gi xool leen ko xool leen gémmiñ gi xool leen gémmiñ gi xool leen ko xoolal ouverture bi xoolal xool ko. maa mu ngi suuf moo tax lan moo tax Siteu war ci kawam ba pare tëdd ci kawam di siitu di def nii te dóoru defu dara dafa tëdd ci kawam rek. parce que boobu dama benn douleur boo xamante ne man ak yàlla dong ñoo xam yow gis nga sa loxo bu sumbee ko wala laajal ko loxoom mosu sumbee c'est la première fois. mën naa la ko simil léegi salaire bi ma yëg sama yaram man ak yàlla dong xam dégg nga ma. léegi nag moom man kii ku dul moom mënu ma tourner yaa ngi dégg. yee ndax parce que boo xoolee gis nga bu muy bu muy def première pas daf ma njëkk a demul deuxième bi gis nga loxo bi la utiliser si loxo boobu la wéeru comme loxo boobu nag dafa metti man pour mu dem day yomb loolu moo waral sama tournée yomb. kon loxo bi fii sumbeeku waat na instant yi. dafa sumbeeku noonu la léegi xoolal mi loxo bi ci ginnaaw du ko bëgg sax teg fii ci ginnaawam rek loxo bi yaa ngi loxo buum day jéem waaye bu la dóoree ci kanam bu méttee rek moom day métti day gisaat loxo bi tout le temps. même bi ma tëddee mu may dóor sax maa ngi jéem a fayu maa ngi jéem a fayu. parce que damay poser question nan lañ ngay mën a dóori ci kanam te yëkkati woo sa garde nii. ci laay soog lan moo tax Siteu di jël loxoom bi di ko bàyyi ci doowu son jël beneen bi bëgg a ak moom ma doon poser bi lan moo taxoon. xam nga xam nga dafa ring dafa compliqué. ring nga nekk ci kaw ci ci biir ring dafa compliqué. comprendre loo xamante ne. yi fay xew yow yow yow yow yow compétent bi rek yow yaa ko a xam comprendre nga. Ah, yee naan pertinent pertinent damay nangu ne pertinent yee mais man gëm-gëm bu mu def si man man daf mu gën a dolli dolli bi ma dolli mooy te mais wallaahi kii nii bi ma gañee ba pare moom si jëm boppam dafa ñëw ba ci man ne moom sax xamul na la ma gañee ba léegi parce que amul benn sens pour gañe ma boo xoolee ñaari yoon yi ñuy egg suuf yëpp ak lu muy métti métti métti métti métti man maa ko eggloo suuf comprendre nga man maay dal ci kaw man maa ko yóbbu ci suuf. mais déglu lan moo tax moo tax du ma tapé man dama dama am benn jikko bu nekk ci man. wallaahi xoolal boo xoolee ba même kuy ma dóor fii kuy ma dóor fii moo yàgg te bari rek mais man ba léegi maa ngi jéem a xool nan laay def ba rocc. léegi nag danañ wax ma ak naa la expliquer benn affaire doolool gaynde barki Serigne Touba bul abandonné barki Serigne Touba mais carrière li topp ci carrière moo ëpp chance abandonné ci benn combat abandon boo déggee ñu koy def ci kaw ring gis nga mbër door xeexkat rek ñuy tëj làmb bi ngay gone ba tey ñuy tëj làmb ji ngay bëre di daanu di daanu di daanu di daanu di daan di daanu nga ñëw MMA di gagné di gagné benn yoon bi nga xam ne ni tey war nga parce que danaa wax y a beaucoup de combattants yoo xam ne ni tey après komba dañoo mujj a dee après combat dañoo mujj am problème mu cerveau lu tax parce que da gis ne duñ nangu coup yi normalement arbitre bi il a laissé trop bu doon man maay arbitre le fait que nga tourner de côté ma xam ne t'as plus de garde t'as plus de défense dañ lay arrêté te ñoo war a arrêté combat parce que y a plus de défense normalement dans les règles c'est exactement demal nga xool mhm. UFC combat yi am yëpp nganu lay dóor nit bul mu daanu arbitre bi dañ ko gis day daw moment bi ñëw nganu day profité pour dóoraat ko mais dañuy xam ne t'es pas en garde moment bi t'es pas en garde mm-hmm. donc fii gis nga lii c'est très dangereux c'est très très dangereux mm-hmm. su ma ñëwee ba moment boo xam ne mënutuma défendre sama bopp sama bopp kese na ci suuf wa punkalum jëmm de cent et quelques kilos yor ay coude kenn du wax ni mm-hmm. dëgëroo de dëgër moom def nga ko moom kooku moom su waay ku la ko mën a wax tamit lii ñii nekk fii di commenter ci ginnaaw di wax lu leen neex bu ñu tëddoon benn rek boo leen ko ñamaloon ñu woo seen yaay kon santal yàlla ci lii mais bu dee yorete yii da ngay tàtte mu jeex nga dem defaru juwaat ñëwaat c'est rien d'autre du gàcca coach Bakary man itam dafa am dama am loo xam dama koy tiital parce que man dama fi toog di défendre mbër yi nga xamante ne ñoom ñooy def MMA. te xamante nañu ni que loxo bu simmeeku musu koo am ci làmb. Hmm. musu koo am ci carrière am c'est la première fois ci ring loxoom di simmeeku ñaar yoon est-ce que kon lu ñu gars yi di waxee ni dañuy dem ci MMA ba di fa jëlee ay blessures est que loolu. Euh, commencé wul nekk dëgg parce que loxo bu si mun na la topp sa carrière yëpp coach Bakary après. jaay ma werga Zador. suba ba tey werga Zador bi rek la nit ñi di laaj. benn bii rek moo ci des. sama gars yi. jarul coow ak Zador rek. fekk leen ma sama kër ma leen invité <laughs> tam Zador ba bala ngay nga bëgg neex nga xiim ko jox sa waay lii far na fur na te fees na teg ci selu waay mar naan marul naan war nga j'adore a neex waay saa boo añee jàpp sa njaax teg sa balada def lewal kuy naan di xaar deuxième sama waay mar naan marul naan war nga j'adore a neex waay li ku ci ñam daal faaw nga takkamtiku ñamal ba war ga Jador yegg na Sénégal ñamal ba xam ak war ga Jador bu leen neexee ñu troisième jël leen seen